salaamaaleykum mbokki Torino Media TV coowal Pawlish Mbaye bu ñu moytuwul dana jur beneen tournure li ko waral du lenn lu dul euh, Mbaye bu Kouthia moom narul bàyyi yëf yi mu sedd ndax daal dinay porté plainte ki nga xam ne moom moo di Pawlish mbay coow li ak na mu tëddee ca plateau guddi gi ca DTV moom Pawlish Mbaye dafa daal di wàcc plateau ba rek dem fekk mbay fa mu toog daal di koy dóor door yu metti Pawlish nag dafa am lu mu dencoon ci xolam lu yàgg lool loo waral mu daal di def jëf jile bokk na ci taxi te de góor jigéen bi nga xam ne moom la ko mbay def ca jamono ja ñu koy bëgg a tëggal combat moom ak Pawlish mbay te ki ko bëggoon tëgg di moo géet ca la ko mbay ne ko du bëre ak góor jigéen loolu la pawlis mbay dencoon ci xol bi ba tax rek mu dal di jëfee ni mu jëfee mbokk yi abonné leen activer seeni cloche de notification ngir ngeen mën a am suñuy vidéo à temps réel jaa ngeen jëf